أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ak yéen suura al an'am tey nekk dars bu njëkk ci saar bi ñu war a jël ñetti aaya yi ci njëkk aaya premier deuxième bu troisième ñetti aaya yi sunu boroom jalla jalaaluhu din ci jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy wujubu hamdillahi taala wa sanaa alayhi bima huwa ahlu danañ jàng tey ne sant sunu boroom subhanahu wa taala lu war la cib jaam wujub baat yi léeg-léeg bu ñuy tafsir lu mel ne wujub wala mashru wala mandub wala mustahab dinañu bëri luñ koy wax saa yu ñu déggee wujub rek nañu yëg ne lu war la sant sunu boroom subhanahu wa taala dafa war ab jaam wasana alayhi ak di ko tagg bi ma huwa ahlu sant ko tagg ko ci ay melokaan ak ay tur yi mu yelloo moom sunu borom nekkul ne suñuy tagg yàlla yow yaay seet melokaan bu la neex rek wala wala déedéet yàlla sunu borom jalla jalaalu dafa am ay melokaan yoo xam ne moom moom la yelloo am ay tur yu mu yelloo yu mu bàkke boppam kon dana yell jaam bi fekkee dafa bëgg tagg yàlla wala mu koy sant mu jël mbir yooyu melokaan yooyu mu sante ko sunu boroom subhanahu wa taala ñaareel mooy laa yasixu hamdu ahad bi duni ma yujadu ladayhi min sifatil kamal ma yaxmadu alayhi du dagan ci jaam du dagan ci benn mbindeef ngay tagg nit nga koy taggee la nekkul ci moom lu mu defut wala lu mu mënut kon képp koy tagg la yell mooy nga tagge ko ca la mu def wala na mu mel rawatina nag bu fekkee lu mat la wala ku mat ñu tagg ko na ko yàlla subhanahu wa taala defaree melale ko noonu matale ko noonu ñu tagge ko loolu léeg-léeg nga gis ci dëkk bi ñuy tagg nit di ko wax ay melokaan yoo xam ne kay déglu wala ñu ëpp ñuy déglu xam na ne li ay fen la dara du ci dëgg benn waaye dafa ñëw ci El Hadji Omar comme dégg na ci moom mbaax mu dem El Hadji Omar defal ko mbaax mu ñëwaat deuxième jour am lu ko El Hadji Omar wax mu jàpp ne safaan la baaxul sëriñ bi génne na tëll rek boor loxo yi ànd ak taalibe yi rek mu commencé di ko xas te démb bi mu ko defalee daf ko taggoon sëriñ bi daal di yéemu daan ne zammun wa maduhun min waahid ila waahid la garib mu ne taggaate ak xaste jóge ci kenn jëm ci kenn maanaam ki taggaate xaste kenn la ki ñu tagg xas ko kenn la ki ko taggoon démb moo ko xastey ki ko xastey moo ko taggoon démb mu ne loolu doy na waar léegi ñaar yooyu ban moo ci dëgg ki la tagg xas la suñ ko laajoon léegi yow ñaar yi nga def tagg la tey xas la suba wala xas la tey tagg la suba suñ ko laajoon ñaar yi ban moo ciy dëgg lu muy tontu kon léeg-léeg doomu aadama yi ñoo yor melokaan yoo xam ne soo taxawee ci seeni mbir ñu tagg la boo taxawee distance ñu xas la wala léeg-léeg ñu tagg la ci loo xam ne nekkul ci yow meloo ko wala defoo ko waxoo ko léeg-léeg ñu xase la loo xam ne meloo noonu aussi wala defoo loolu wala waxoo loolu loolu yépp ay mbir la yoo xam ne ab jullit na ci bàyyi xel xam ne képp ku ñuy tagg wala ñu lay waxal ak mbaax lan war a wax mooy la nga def wala na nga mel ñetteel mooy ataajub min haali man yusawwuna almaxluqat bilxaaliq aza wa jal fi l ibada mbokk yi ñun ñëpp war na noo ànd yéemu waaru ñun ñëpp dañoo war a ànd yéemu waaru ci lan mbindeef yii nga xam ne dañuy tollale mbindeef ak yàlla dañuy tollale mbindeef ak ki ko bind musiba weesuwul ñu jël nit mbindeef ak la mu mën a doon nit la garab la jinne la malaayika la ku mu mën a doon ab yonent la ñu jël la di la tollal ak yàlla subhanahu wa taala loolu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kuy jommi rek di waaru war ngaa waaru ci loolu fekk koo xam ne dañ ko bind dafa am ndey am baay dafa juddu na nit ñiy juddoo mu dee wala mu nar a dee ni nit ñi di faatoo ñu nar ko suul suuf si lekk yàppam yeeg yaxam ñu jël kooku di ko tollal ak yàlla ku bëgg a jommi rek wala nga bëgg a yéemu rek boo gisee kuy def loolu waarul ci moom parce que yàlla du moroom rawatina mbokk jullit yi ñu jël waajooju wala loolu di ko dendale ak yàlla ci jaamu yàlla lu ñu war a defal yàlla ñu bàyyi ko dem di ko defal nit kooku loolu dëgg-dëgg jar na waar ñeenteel ataajub min haali man yara ajaibi suna allahi wa mazahiri qudratihi summa yunkiru lbaas walxayatu l axira war noonoo waaru waat ci leneen ci yeneeni mbir ci yeneeni melokaan yoo xam ne yu doy waar la mooy lan ci waa ji nga xam ne dafay gis ay kéemtaan ci univers bi yàlla def ko asamaan suuf jant weer biddéew géej garab mbindeef yi mu gis kéemtaan googu yàlla def mu teg ci bëtam ba pare muy weddi ëllëg naan yowmal xiyaam amul ku dee doo dekk alaxira amul ay faux problème la te nga gis lii lépp yàlla def ko yàlla ne maa leen bind dinaa leen dundal danaa leen rey danaa leen dekkil nga gëm ñeenti nga weddi bu mujj bi nga ne yàlla mënul dekkil kenn loolu mënul nekk dëgg-dëgg ku mel noonu ku ko gis war ngaa yéemu ci ay mbiram ku gëm ne yàllaa la bind gëm na yàlla bind asamaan moo bind suuf moo defar jant bi defar weer wi defar guddi ak bëccëg defar mbindeef yi ak ndundateef yi nekk ci suuf bés bu nekk nga gis yàlla di ko fi jële ngay gis ay kéemtaanam ak kattanam moom yàlla ni mu noote adduna bi ci kattanam règle yi mu tëral loo rek mooy am guddi guddi rek lay nekk bëccëg bëccëg la asamaan ci kaw lay nekk suuf suuf lay nekk noonu yàlla nootee àdduna bi ci kattanam di ko doxal ni mu ko neexee jant bi di daw ci espace bi muy daw di ci fii weer wi kazaalika suuf si kazaalik doomu aadama yi mënuñu dund fenn lu ci kaw suuf mënuñoo dem kaw asamaan dund fa mënuñoo dund biir géej mënuñoo dund ci biir suuf si nga gis loolu ngay weddi ne ëllëg sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mënul dekkil jaam ñi ëllëg alaaxira dara du fa xew dund gi du jeex ku gis ku mel noonu dëgg dëgg dëgg war ngaa jommi ci ay mbiram war nga cee waaru juróomeel ci lu ñuy jële ci ñetti aay yi nekk sunu kanam mooy sifatu ilmillaahi taala melokaanu xam-xamu yàlla mbokk yi yàlla boroom xam-xam la de ku xam ku ne yàlla moo la raw moo la mën ndax li nga xam moo la ko xamal yàlla lépp lu mu def ci àdduna rek lu ñu xam ak lu ñu xam lu ñu xamul lu ñu gis ak lu ñu gisul yàlla ci xam-xam la ko defee yàlla nuróowul ak mbindeef muy làmbatu di def ay test boo defee lii def lii amaana mu def lii nga nekk ci ay at nga doog a trouver dara déedéet yàlla du kooku yàlla lu mu def rek ci xam-xam la ko teg ndax yàlla mooy alim mooy boroom xam-xam bi moo tax xam-xam benn la ci ay melokaanam moom yàlla ku xool asamaan xam nga léeg-léeg nga gis benn dessinateur bu taxaw dessiner asamaan si dessiner géej gi mu de mu def diggante asamaan ak suuf ay picc mu def ay garab def ay montagne ah mu ñëw affiche tableau bi nga gis gars yi di jënd un million ñu ne xeeb na ko naa gisoo lii kii vrai art la nga gis gars yi di ko layal ñëpp daw ñëw di seetaan tableau bi tableau bi lu ñu koy jaayee yenn saa yi mu dem ay 500 millions waa jooju def loolu ba nit ñi di joom mi fan la ko jëlee ah ci univers bi la ko jëlee ci àddina bi la xool waaw kooku foofu mu xool ba def lii yàlla mi def loolu nag kooku xool ban moo waroon waar doomu aadama yi benn waay dafa defar benn mbir bu rafet mu woote kaay leen ngeen xool li ma def lii waxoon naa leen kenn mënu ko man dong maa ko fi mën benn borom xam-xam bi mu ñëwee visite ba pare ne ko ana li nga def mu ne moo ngi nii mu ne ko lii kay defaroo ko kii kay fi nga ko fekk mu ne ko na laa ko fekkee mu ne ko du weñ nga ko defaree weñ bi foo ko jële mu ne ko fii mu ne ko jeex na kon kay yow defaroo da ngaa beesalaat rek soo doon defar da ngay indi dara loo xam ne jële woo ko fenn ku mën loolu fii ah benn waaye dina tiitaru ne maa tabax kër gi maa ko defar foo jële suuf foo jële fer foo jële ciment foo jële béton yow mi ko defar foo jóge kon dangaa fekk lu yàlla def ba pare nga dajalaalu ci di dajalaatu takkale for daal defar su fekkoon nag da ngay defar loolu ñu naan xalq kooku yàlla rek moo ko mën waaw yàlla rek subhanahu wa taala mooy créateur bi ñeneen ñëpp dañuy xool ci li yàlla defar ñu yow for ci defar dara kon yàlla mooy boroom xam-xam bi wa annahu taala laa yaxfa alayhi shay'un fi l ard wala fi sama yaalamu sirra wa axfa moom sunu boroom amul lenn lu nëbbu ci moom laa yaxfa alayhi shay dara nëbbatuwul ci moom dara loolu tax nit ñi jullit yi wala góorgóorlu ci seeni melokaan seeni jëf xam ne yàlla laa yaxfa alayhi shay dara nëbbatul ci moom yàlla amul lu nëbbu ci moom lépp ngi ne fan mbokk yi ndax yéen am na lu nëbbu ci yéen wala amul lu nëbbu ci yéen ah déedéet doomu aadama yaalamu na lenn rek zahir min xayaati dunia lenn ci mbirum àdduna lu ndaw lañ xam li des kenn xamu ci dara yàlla moo ko xam wallahu yaalamu yàlla xam wa antum la taalamuuna yéen xamu leen lu tax wa ma utitu min al ilmi illa qalilan li leen jox ci xam-xam lu tuuti la waaw boroom xam-xam ba nee na qul liman yad'u bil ilmi maarifatan arafta shay wa ghabat anka asya koo gis mu naan man damaa xam di nganda ngandulu maay boroom xam-xam bi ne ko tuuti nga xam li nga ignoré moo ëpp li nga xam li nga xamul moo ëpp téeméeri yoon te koo gis mu am xam-xam nag laa wax tuuti la xam dañu fekk benn waay muy woote ne man damaa lu ma waay laaj ma tontu ko benn waay ne ko saaku saaku saaku fëriñ ñaata kilo la ñu koy def mburu kooku sax laaju ko ay diine da ko ne saako fëriñ mu ne ah mu ne ko buñ koy def mburu ñaata kilo la mu ne ko xaaral ba mu wàcc ma dem laaj ko boulanger bi kon koy xamoo waaw keneen ki doon wax ne man lu ma waay laaj ma tontu ko benn borom xam-xam ne ko nan laa tudd moom problème c'est ça moo tax doomu aadama yàlla rek moo xam da ngay jàpp ne da ngaa xam bu leen fàtte Moussa taxawoon na ci banu Israil mu ne yàlla ndax am na ci xeet bi ku ma gën a xam yàlla mu ne ko waaw waaw yow ka waa jooju waxuma la moo la gën a xam waaye moo la raw mu ne yàlla kooku fu mu nekk mu ne ko ma nga majma bahrayn boo demee ba foofu fi ñaari géej yi di laalante soo fa demee di nga fa fekk benn waaye boo xam ne moo la raw ba mu demee mu fekk fa ku ko raw effectivement kon yàlla rek moo xam bu kenn ci ñun dafa ne moo fi raw wala moo fi mën di fëgg dënnam li nga xamul moo ëpp li nga xam li nga réere moo ëpp téeméeri yoon ak li nga xam mu ngoog kon xam melokaanu yàlla la moom yàlla laa yaxfa alayhi shay dara nëbbutul ci moom fil ard wala fi sama du ci suuf du ci asamaan moom yàlla yaalamu sirra moo xam li nëbb wa axfa moo xam li feeñ assir wa axfa li nëbboog li feeñ yàlla moo ko xam kenn ci ñu mën naa nëbb dara kenn du ko xam waaye li nga nëbb yàlla xam na ko benn waaye dafa faatu malaaka yi bañ demee ci misaan xasanaatihi fekku fa fekkuñu fa lu bon moom waa jooju ku baax la woon da daan toggal yaayam amul lum ko defal ci kaw suuf lu ne lu yaay ji bëgg mu def ko mu def ko moom waa jooju lu yaayam bëgg rek taxaw na ci guddi ak bëccëg pour def ko mbokk yi waa jooju bi mu faatoo yàlla mu ne malaaka yi yóbbu leen kii safara gars yi daal di tiit ñu ne yàlla subhanahu wa taala kii lan la war a def ba dem safara ñun dem nañ ci fëy lu baaxam gisuñu fa lu bon wala ñun ñooy moo ñu jaaxal yàlla mu ne kii lan la def ba ngeen ko bëggee ba àjjana ñu ne kii da doon liggéeyal yaayam mboolem lu baax lu doomu aadama di def di ko defal yaayam kii def na ko kon yow yàlla lu tax nga bëgg waa ji dem safara yàlla mu ne leen xam ngeen man maa xam yéen xamu leen kii xam ngeen bi muy defal yaayam su defee ba pare lan lay wax bu ko joxee lekk ba pare wala mu sangu ko wala mu jox ko mu naan wala wala wala wala ba pare xam ngeen lu muy wax lu xol bi di wax allahumma xuzha wa arihni minha yàlla meer bi na dee ba ma noppalu waay ah xol bi mooy wax loolu de làmmiñ bi waxu xol bi mooy wax loolu na meer bi dee ba ma noppalu yàlla mu ne yéen nag xamu leen moo ne yéen li ngeen doon bind mooy li ngeen gis ci kaw kii man maa yor xol bi maa xam li xol bi doon def li xol bi doon wax gis ngeen kon xoolal jëf ji ni mu feeñee ci biti ak xol bi li mu amee contraire tey jii bu doon def loolu mu wax xol bi génnee su ko gémmiñ gi déggoon génne woon ba yaay ji dégg ko lu yaay ji di wax ndax day gërëm doom jooju kon kon jëf ji dafa safaan kon suñu tënkee mbokk yi mbir yi nii juróom moom moo nekk ci sunu ñetti aay yi nekk sunu kaw kanam mu nekk njëlbeenu saar suura al an'am saar bi tudd an'am lu tax ñu tuddee ko al an'am jële nañ ci tabari wala tabrani mu jële ci abdullahi ibnu umar radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nazalat alayya suratul an'am yonent bi alayhi salaatu wasalaam al imaamu tabraani nettali na xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abdullahi ibnu umar mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suuratul an'am dafa wàcc ci man jumlatan waahid globalement saar bi yépp dañ ko wàcc saar bi ñaata aaya la waxoon naa ko samedi saar bi ñaata aaya la bu kenn xool téere yi bu kenn xool waxoon naa saar bi ñaata aaya la pourtant samedi rek de tey la am une semaine ah waxal ci kaw waxal ci kaw cent waaw cent soixante cinq aaya la xamsa wa sittuuna wa mia cent soixante cinq aaya saar bi dafa wàcc globalement xam nga saar yenn yi day wàcc fii genn wàllu wàcc fii genn wàllu wàcc fii saar bi nag ba muy wàcc yonent bi jumla waahid benn benn la wàccandoo wa sayyaaha sab'una alf malik escorté saar bi saar bi muy wàcc dafa ànd ak juróom ñaar fukki junni ay malaaka ñu escorté saar bi lahum zajalun ña ngay way ay way ña ngay sàbbaal di wax ay baat bi tasbih wa tahmid ñu ngi escorté saar bi di wax ay wax maanaa di tagg wala di sàbbaal wala di màggal borom bi tabaraka wa taala kon saar bi saar bu màgg la saar boo xam ne benn yoon la wàccandoo ci yonent bi wàcc màkk ba pare ba muy wàcc ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka ñu wër ko di bàkk di sabbal kon saar bu màgg la lu tax ñu tuddee ko an an al an'am baat boobu di baatu an'am dafa ñëw ci saar bi juróom benn yoon ñi nga fekk baatu an'am ci biir saar bi six fois juróom benn yoon moo tax ñu tuddee ko saar bi saar bi mbokk yi bi muy wàcc ci màkk guddi la wàcc wàccul bëccëg nazalat bi makka laylan guddi la wàcc ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca makkatal mukarram saar bi tàmbalee lii saar yi tàmbalee bismillahi arrahmani irrahim waxoon nañ la muy tekki ca fatiha ca baqara ca ala imran ca ca nisaa'i ca maida saar bi borom bi ne alhamdulillah sant ñeel na yàlla assana bil lisaan tagge yàlla ci sa làmmiñ moom mi nga xam ne alal mahmudi moom lañ war a sant bi sifaatil jalaali wal jalaali ci ay melokaan yu jamaali wal jalaal ci ay melokaan yu mag yu taaru moom yàlla tabaraka wa taala alhamdu cant lillahi ñeel na yàlla ixtalafa ahlu luga boroom xam-xam yi jàngale làkk dañoo wuute ci baatu alhamdulillah ñu ne ndax am na différence baat boobu ñu naan alhamdu wa sukru sukru lu muy tekki ah cant alhamdu lu muy tekki cant ñaari baat yi ci arab bokk ñu nuñ leen di lire waaye bu ñu leen di firi ci olof lu ñuy wax cant alhamdu cant a sukru waaye ñu ne ndax baat yi wuute na wala wuutewul lenn ci borom xam-xam yi ñu ne baat yi wuutewul ku mel ne imaamu tabari moom loolu la wax nee na alhamdu mooy asukru waaye li ëpp war raajix ci jumhur dañu ne inna alhamd awsa min asukri cant moo gën a yaatu sukr baat bii di alhamdulillah yàlla wax na ko ci alquran ñaata yoon ana ñu mokkal alquran ñaata yoon la yàlla wax alhamdulillah ci alquran ci yan saar la ko wax ñëw na ñaar fukki yoon ak ñett ci alquran ci ay aaya yàlla di wax alhamdulillah cant ñeel na yàlla ñaar fukki yoon yooyu ak ñett ci ñaar fukki saar la ko yàlla wax am na ci saar yoo xam ne ñaari saar yoo xam ne yàlla wax na alhamdulillah ñetti yoon lu mel ne suratu naml ak suratu zumar ñaar yooyu di nga ko fekk ñetti yoon ay aaya ci biir yàlla di wax alhamdulillah ban saar la yàlla njëkk a wax alhamdulillah ci alquran ku ko xam bu kenn wax de ku xam yëkkati sa loxo saar bi yàlla njëkk a wax alhamdulillah ci alquran ku xam yëkkati sa loxo mbokk yi bu ngeen yëkkatiwul dama leen di génne jàkk ci alhamdulillah saar bi ko yàlla njëkk a wax ba- fan la nekk fatiha bu ngeen di julli lu ngeen di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala da ngeen a bëgg a 24 yi moo tax ngeen ngeen kii alhamdulillah foofu la ko yàlla njëkk a waxee ñaareel bi ñëw na ci anam ñëw ci araf yunus ibrahim nahli isra kahf muminun namli trois fois qasas ankabut ruum luqman saba fatir safat zumar trois fois jasiya taxaabun fan la alhamdulilah mujj ci alquran ci 114 saar yi saar boobu mu mujjee wax léegi muy suratu taxaabun borom bi tabaraka wa taala di xabaar di xamal yuxbiru taala bi annahu almustahiqu lilhamdi kullihi moom yàlla mu nuy xabaar di nu xamal ne moom borom bi mooy ki yeyoo cant lépp nag moom moo ko moom alhamdu lillah mu ne waxuwal was loolu mooy melokaan bil jalal wal jamal wassana ku bëgg a màggal yàlla ku bëgg a taaral yàlla ku bëgg a sant yàlla mu ne baat bi ngay jël muy baatu alhamdu mu ne wa dammana zalika loolu ëmb na nag yaamuru ibadahu moom yàlla muy digal jaam ñi an yaxmaduuhu ci ñu sant ko moom yàlla ci ñu gërëm ko mbokk yi ndax yàlla jar na gërëm wala jarul gërëm jar na sant wala jarul sant jar na màggal wala jarul màggal ndax sunu boroom def na luñ ko war a sante gërëm ko màggal ko wala defu ko yéen muma sunu borom def na lu ñu ko war a gërëmi wala def ko yéen lu leen dal sunu borom def na lu ñu ko war a màggale wala defu ko def na ko buñ dem ci asamaan buñ dem suuf buñ génn jàkka ji nañ xool sunu bopp rek ku nekk xoolal sa bopp boo xoolee sa bopp rek da ngay jël sa alal nga fay maçon yaa ko fay yaa jënd matériel yi mu tabax tabax bu rafet nga ñëw ne ko lan soo jërëjëf fay nga am yére nga yóbbu ko ci téyeer yaa jënd tisi bi yaa ko fay mu ñëw ko ñëw bu rafet nga ne ko lan naka noonu demal ci matériel yépp képp koo xam ne yow yaa koy liggéeyloo da ngay jënd ba pare indi mu defar ko ba pare nga taxaw naan ko jërëjëf waay yàlla bi mu ñuy defar nag ñun kan moo jënd der ak yàpp ak deret ak ay sidit ñëw na yàlla defar defaral ma wax leen kan da ngaa xëy rek ne cut kon kay war nga wax alhamdulilah bu fekkee ñee nga xam ne dañ leen jox ay bagage ba pare boole ci di leen gërëm di leen sant sunu borom nag amul kenn ku ko jox dara bi muy defar asamaan ndax am na ku ko jàppale bi muy defar suuf ndax am na ku indi benn birig dugal ci bi muy defar géej gi bi muy sàkk mbindeef yi ana kan moo ci jàpp kon yàlla jalla jalaaluhu sunu boroom def na ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla jar na sant moo tax mu ne alhamdulillah cant ñeel na yàlla moom yàlla du waxantu moom yàlla subhanahu wa taala def na ay mbir yoo xam ne du wax ne man yàlla cant ñeel na ma rek pour nit ñi di wax alhamdulilah déedéet dafay wax lim def pour nit ñi xam li yàlla def mu ne yàlla moomu ñuy sant allazi mooy ki nga xam ne xalaqa moo bind asamawaati asamaani juróom-ñaar wal arda ak suuf si juróom-ñaar yàlla ko defar xalaqa samawaat wal ard suñ ne yàlla xalaqa samawaat moo bind asamaan asamaan yi ñaata la ñaar asamaan yi lan moo fa nekk distance asamaan yi asamaan bu nekk li ko yàlla defare ak la fa nekk ci kaw ndax ñun xam nañ ko ndax peeg nañ ko ndax peeg nañ ko ñun xam nañ ko xamuñu ko da ngay dem yoon xam-xam yi naan lay benn asamaan bi di jaay ji di jaay bi di jaay maanaam dal bi épiseur bi borom xam-xam yi di la ko wax ñu ne la asamaan boobu përëm la nga romb ñu ne asamaan bi or la nga romb ñu ne asamaan bi xaalis la ah allahu akbar loolu bi ko yàlla defar kan moo ci doon jàpp xam nga lan moo ñu alak bu ñu ne yàlla xalaqa sama yàlla defar asamaan rek nga ne nii gis kii demee nga daal nawaat nii pour yow du dara quoi maanaam doo doo def intibaa lan mooy asamaan asamaan yooyu lu fa nekk lan la ko yàlla doon defaree ah allahu akbar nga pare asamaan mu ne wal ard ak suuf sànq bi ma nee asamaan xam nga ñu bëri ba ni moo xam nañ asamaan juróom-ñaar la waaye boo nee suuf gars yi ne nan la suuf nekkee juróom-ñaar ban aaya alxuraan moo ne suuf juróom-ñaar la suur taxaabu wal ardu mislahunna wal ardu mislahunna xoola suuf si mbokk yi yéen yaa jàng ne benn bal la waaye gis nga am na boo yoo xam ne bu ñuy gas pompe di gas pompe ndox yi yii nii pompe yi ngeen di gis nii nit ñi di bës ndox yi di ñëw yenn saa yi damay ànd ak ñoom gis nga loolu ñu naan suuf juróom-ñaar la xale yi dañuy gas di génne ay façon suuf ci biir suuf si yenn saa yi bala ñu am ndox ñu génne ñeenti façon suuf waaye ñu génne suuf bu xonq génne suuf bu weex génne suuf bu jaune génne suuf bu ñuul waaw noonu mu nekkee ci suuf si noonu la nekkee ci xeer yi noonu la amee ci ndox mi da ngay dégg sa gaay ne da ngay génn napp dem ci napp kan moo def loolu yàlla ñun bokk nañ ci lu nu lu nu indil problème mooy buñ ne yàlla defar asamaan pour yow mooy lii nekk ci kaw buñ ne suuf mooy lii ngay dox jeex na amul lenn la ci war a waar waaye xoolal diggante ñaari rek tey asamaan ay nit ñoo ciy jàng xam-xam day gis ku def doctorat ci lan la ko def ah astronomie nga gis koo xam ne doctorat la def ci suuf lan la def géographie ñaar ñi bu ñu dajee kenn ki buy wax kenn ki day toog ne nii mel ne élève bu nekk sixième dootul xamante dara allahu akbar te kenn ki moo ko defar ñëwagoo géej ñëwagoo ci garab yi ñëwagoo ci rabu àll yi kon yàlla mbokk yi du sunu moroom xalaqa samawaat yàlla moo bind asamaan yi wal ard ak suuf wa jaala moom yàlla mooy ki def azulumaat lëndëm yi lëndëm yi wan nuur ak leer gi waaw fii ñaari mbir a ngi fi sunu borom bi muy wax lëndëm daf ko def daf ko def groupe bi muy wax leer normalement dafa doon wax wa jaala zulumaat wal anwaar maa def leer yi lëndëm yi waaye maa def leer bi waaye ñaar yooyu yëpp sunu borom subhanahu wa taala dafa ne man yàlla maa sàkk lëndëm yi az zulumaat waaye bi muy wax leer wan nuur benn la wax benn benn wan nuur benn la moo tax gaa yi ñu ne zulumaat yàlla ne zulumaat mooy lu dul lu dul islaam rek lëndëm la lëndëm daa bëri moo tax façon mooy yàlla yi bokkut kii day def lii kii def lii kii def bi kii def bi kii def bi yooyu yëpp boo leen boolee moom mooy mooy zulumaat ki day bokkaale yàlla ci ndox ki bokkaale yàlla ci garab ki bokkaale yàlla ci safara ki bokkaale yàlla ci ay nit ki bokkaale yàlla ci ay jinne ki bokkaale yàlla ci malaaka ki bokkaale yàlla ci suuf ki bokkaale yàlla ci xeer yooyu yëpp boo ko boolee mooy zulumaat waaye wa nuur benn kese la mooy leer mooy njubal yàlla tabaraka wa taala amul leneen mu ngoog kon ki def lii dëgg-dëgg mbokk yi yeyoo nañu sant ko mu ne waaye summa topp allazina kafaru bi rabbihim gaa ñi nga xam ne dañoo weddi seen boroom yaadiluun yusawwuuna bihi xayrahu fa yabuduunahu maahu loolu yàlla li mu def lépp ñi weddi yàlla taxaw amul ñu ñuy def dul yaadiluun ñuy tollale yàlla keneen indi keneen naan waaw yàlla dëgg la waaye nag diw ñi moo nii dal ceeb yi allahu akbar dëgg-dëgg ki nii naal ceeb bi kay mooy ki saxal gerte gi ah wala ki ko roose indi suufam ñu dugal ko ci nga dugal benn mu indi ci téeméer nga ruuj dem sa tool mu sax benn saaku nga indi woon yàlla jox la junniy saak nga jël lépp defar ba pare waa ji ñëw jënd yóbbu def jox machine yi machine yi yëy lee ñu def ko ràkkal li ñu def ko diw sa soxna dem marché ah nga lekk ba suur au lieu nga ne alhamdulillah nga wax nga sant keneen su ma lezina kafaru topp ñi weddi yàlla amuñu lenn lu ñuy fay yàlla ci lim def mooy yaadiluun ñu koy tollale keneen beneen bindeef ñu koy gam-gam leeg yàlla waaw waaw waaw dëgg la dëgg la yàlla nag moom la ilaha illallah benn waaye nee na man la ma yàlla jéggal sax ci nettali gi ma koy nettali nee na dafa gis ay tànk mu topp tànk yi li may wax ni nag ku ci ku ko bëgg am na nga dem ci waa ji mu téléchargé la ko ndax man moom moo ko envoyé kii toog nii boroom sikkim boobu nee na dafa gis ay tànk mu topp tànk yi topp tànk yi ba tànk yi dugg benn kër nee na mu dugg fekk kilifa gi toog ci chaise bi mu ne ko ana borom tànk yi mu ne ko mu ngi ci wanag wi liggéey mu dugg fekk yàlla la xasaayu di liggéey mu ne ko ah yow yàlla ndeke da ngay naxaate da nga ne yaa yàlla ba pare nekk yow guddi fii ngay ñëw di liggéey ah. dégg ngeen loolu loolu de la waa Sénégal di wax yàlla yàlla day liggéey day ñëw Sénégal di bale di raxas di takk ay sàkket summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun gis ngeen de da ngeen di jàng alxuraan ngeen defe ne ay yéeféer yi la ñuy waxal fekk am na ci nit ñi ñu sànku ñuy woowe seen bopp ay jullit pas-pas yi lañ yor yàlla day nëbbatu di di liggéey di liggéeyal kan ab jaamam mbindeef bu mu bind allahu akbar lu mu koy defal da koy ratool di ko defaral ay sàkket allahu akbar kon ana kattan googu yàlla doon wax kum fayakun nekkal mu nekk anamu waaye loolu réer la rek moo tax foog ñu jàng alxuraan suñu jàng alxuraan rek dañuy alxu dañuy sànku waaw dañuy sànku laa la wax buñ jàngul alxuraan dañuy alku foog alxuraan bi ñu teg ci suñuy bët bis buñ ko bàyyee rek nii waa réew mi mel la nii mel di tollale yàlla ak ay mbindeefam wala ñuy wax ay baat yoo xam ne yellul ci màggaayam moom sunu borom subhanahu wa taala mu ne moom yàlla huwa alladi mooy ki nga xam ne xalaqakum li tax ñu war ko sant ba tey mu ngi nii leneen a ngi nii mooy ki nga xam ne yéen ñii toog ak ñeneen ñu fi jiitu woon jóge fi ak ñii ñëw sunu ginnaaw ak ñu fi teewut xalaqakum maa leen bind ci lan min tiin ci ban muy cosaanam aadama lan mooy cosaanam ci lan la ko yàlla bind aadama ci ban min tiinin laazib min hama in masnuun fi salsaalin kal faxaar yàlla aadama ban la ko bindee mooy cosaanu doomu aadama ban wala suuf su xonq su ñuul ban buy xeeñ ban xam nga bu nëbee nu muy def nu muy def day génn benn erreur ban boobu la yàlla jël bind ci doomu aadama waaw muy sunu maam aadama ca njëlbeen yàlla binde ko ban boobu bisu vendredi ca biir aljanna yàlla def guddaayam mu nekk 60 xasab ci déggin 60 mètres guddaay bi kooku ko bëggoon solal grand mbubu dina garaaw de wala tubéy 60 mètres yaatuwaay bi 7 mètres loolu la yàlla bindee aadama mooy sunu maam ñun ñii yépp cosaanam lan la suuf la woon yàlla moo ko bind ak ay loxoom yu tedd yi mu ne summa qada ajalan summa topp xadaa yàlla dogal na ci moom ajalan dig bu mu war a dund waaw ku nekk rek yàlla wax na li nga war a dund du yokk du wàññeeku li nga war a dund ngay dund mu ne li anna aadama abahum aadama mooy seen baay xalaqahu yàlla bind na ko min tiin summa natanaasalu après nag ñuy jurante mu ne kon war ngeen waaru ci loolu war nañ cee jël ak waar cosaanu doomu aadama summa qada ajalan topp yàlla dogal atte doomu aadama dund gi mu war a dund mu nekk ñaar wa ajalun musamman ak dund goo xam ne yàlla rek moo ko xam indahu fa moom kenn xamu ko yéen ñi toog fii jàkka ji ku nekk ñaataan nga yam ñaataan nga yam yow xamoo yow nag ma romb yow nag yow nag yow de xam nga ko yow ñaata la ak kon oustaz comme mooy tafsir war na ko xam xaw ma ko de wa ajalun musamma dig goo xam ne dund goo xam ne yàlla rek rek rek rek rek moo ko tudd indahu fa moom moom rek moo ko xam xëy bu la kenn xamu ko ku dul moom doo fekk mukk nit dee wala nit di waaj a faatu ñu ne ko ñaata at ngay mu ne dañoo wàññi sama yaat nangam nangam man xam nga ne waroon naa na gërti gërti gërti commencé xam nga ne loolu ndeysaan kenn dong la ko yàlla defoon muy aadama aadama moo wàññi woon ci atam ñeent fukki at daal di koy may bay nonent si yéen am ngeen problème de ban yonent la ko may kon ma bàyyi loolu ba darse bii di ñëw bi dee jotee malaaka bi ñëw ne ko sawaay da ngay dee de mu ne man ma ma dese 40 ans ñu ne ko da ngaa fàtte mu ne lan laay fàtte ñu ne ko yow sa dund wàññi woon nga ci ñeent fukki at maye ko mun lée ilée ilée dama koy nangu mu ne yàlla mu ne walaqad ahinna ila adama min qablu fa nasiya adama dama waxoon ak moom mu fàtte mu fàtte waaw ndeysaan mu fàtte dafa gisoon nag sa waay waajooju du ma ko wax de samedi bii di ñëw en tout cas samedi du ma ko wax mu gis kooku rafet rek mu ne yàlla kii kan la yàlla mu ne kii sa njaboot la bokk mu ne all kii de may naa ko ñeent fukki at ci sama dund moo tax loo gis benn waaye naan dén saa ngi dégg maire ji naan maire yi naan tey ji bu dee ñëwoon danaa dee wala papa papa wala yaay naan bu dee ñëwee naa njëkk a dem moomu billahi bu dee ñëwoon mun a yóbbu ko maay bàyyam waaye yóbbu ko de su dee doon tàggoo dugg ci kër yi asalaamaaleykum ana paa bi nga dégg mu ne loo may dee mu ne dee man la dee mu ne ko kii sama taaw la jëlal amul kenn ku bëgg dee amul kenn ku bëgg dee jamais parce que dee mu ngi noonu neexul dee dafa metti moo tax yàlla lu mu tuddee dee mooy musiba musibatul mawt xam ngeen dee lu ci garaaw du du jël ruu gi du du du nit ki niñ koy sangee du niñ koy takkee du niñ koy suulee waa ji daa dem xamuñu fu mu jëm looloo ci metti xamuñu lam dem lan la fa fekk looloo fa metti waaye ku mu leeroon ne kii daa dee ajana la dugg sëñ bi yéen ñi toog fii kan la mbokkam di di di di tukki dem Italie muy weer di jooy wax leen kan la fi papaam ne ko maa damay def États-Unis suba muy jooy. danaan demal boo demee maa ngi fii waaw maa ngi fii day kontaan nga gunga ko aéroport sax ndeysaan akolaat ko dëñ ñëwaat sa waay dem na nee na incha allah daf may lijjanti ndeysaan allahu akbar sunu borom a ngoog de moom rek moo xam mbir yi ajalin musamman indahu mu ne summa antum tamtaruun yéen yéeféer yàlla mi def lii bind leen jële leen ci suuf indi leen ci kaw suuf wàcce leen ngeen dund mu rey leen ne da leen di dekkil ngeen ci sikki sàkk tamtaruun summa antum tamtaruun ngeen di sikki sàkk ne yàlla mën na noo dekkil wala mën noo dekkil dëgg dëgg dëgg du mbir mu doy waar la ah ñaar yi lan moo gën a jafe créer ak defaraat lu gën a jafe ah créer ak defaraat créer moo gën a jafe ah dëgg waa ki créer ba pare mbir moomu yàqu ñu ne ko mënoo ko defaat ñi ko wax loolu dañoo dof rek benn borom xam-xam nee na doomu aadama yi man damay jombi ci seen bi mu ne dañuy dem dañuy solu sangu ba set diw peñewu dem ci photographe bi ne ko photo ma mu photo leen photo bu rafet ñu génni ko photo bi yàlla def mu réer wala mu lakk mu ne ñu soxlawaat même photo est-ce que dañuy demaat sanguwaat pompuwaat diwwaat solaat même yére taxawaat même place ne ko ne ko photo ma ah nooy def sotti na ko
allahu akbar wala yéen nekk seen seen portable yi day jël benn photo envoyé ko 30 personnes image bi mu ngi sa portable du fi jóge mukk lu dul nga effacé ko waaye yéen ngeen defe ne ñun suñuy photo yàlla yore woo ko moo tax yowmal xiyaam yàlla bu la lakkee ba nga jeex mu defaraat la waaw nii rek lay def taf rek nga ñëwaat comme yow mii di envoyé photo bi taf mu dem saa yi jot nga mën a jot naa nga ne xaaral ma xool yeneen gars yi jot ngeen ñu ne waaw nga ne xaaral ma xool yeneen ñi waaw yow nga defar loolu doomu aadama defar loolu di envoyé photo yi ñëpp di jot yàlla ne dinaa la lakk defaraat la nga ne na nga koy weddi su mantum tam taruun ngeen koy weddi te yéen ngeen gis lii mu nekk même personne même nit wala du loolu soo envoyé benn photo bi kenn yeneen ñooy ñëwaat wala seet gars yi nañ leen xolaat suñu bopp suñuy kilise mang ca yàlla kilise xam ngeen kilise xam ngeen kilise mooy lan ah criquet amatul sax léegi jërëjëf criquet gis nga loolu di denc photo bi nga xam ne bu ko waa ji bëggee defar day ñëw rek nag ñaata nga ci soxla mais dafal ma ci 20 waay mu dóor mu ne vingt yaa ngi nii léegi nga dem vingt yooyu yàqu nga ñëwaat da ngay ñëwaat fa sanguwaat soluwaat da ngay ñëwaat ne defaraatal ma yeneen gars yi suñuy kilise mi ngi ak yàlla buñ nax suñu bopp adduna bi rek jàngal nañ ñu ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina leen duma c'est parce que mooy borom kun fa yëkkoon yàlla mën mu ne moo tax summa antum topp yéen ñii ah tamtaruun ngeen di sikki sàkk ne ëllëg mën naa leen a dekkil yowmal xiyaam dinaa leen fay ngeen koy ngeen koy weddi man yàlla ma tàmbale leen fële ba fii ngeen toog ngeen ne bu ma leen reyee mënu ma leen dekkil ah, mu ne wa huwa moom yàlla wa huwa moom allah mooy yàlla fi samawaati wa fil ard am na ñuy jàpp ne ñaari yàlla la ndax wax bi mu wax ne wa huwa allah fi sama wa fi l ard mooy yàlla asamaan mooy yàlla suuf du ñaar de kenn kese la gouvernement am moo yegg ci suuf président de la république fu mu nekk nii instant yi may wax ak yéen waaye na- nañu révélé wu fii ci jàkka ji ñu xool lan moo ñu fi fekk léegi balaa gee jot bu waa Ndar révélé woon léegi lan lan moo leen fay fekk balaa gee jot bu waa Casamance révélé woon léegi lan moo leen fay fekk pourtant président dafa tukki nekk fi de waaye kattanam pouvoir am moo yegg foofu arrahmanu ala al arshi stawa yàllaa ngi asamaan mu nga ars waaye kattanam moo gouverner suuf si moo ko noot li fiy dox moo koy doxal mooy indi guddi gi ci ban heure ngeen nekk ci ban heure ngeen nekk guddi indi leen ba jëf pourtant ñun ñu nekk jàkk ji bëri nañ de ñaata lañ nañ compter suñu bopp ñun ñi war nañoo mën a indi bëccëg ak niñ bëree nii wala mënuñu ko ñu woo waa Sénégal yëpp kon ñu dimbali nu mën nañ ko ah lu tax
waaw
allahu akbar waaw jël la jëlaat waaw.
kattanam moom yàlla tabaraka wa taala kenn mënu ko bu indee bëccëg kenn mënul indi guddi maa yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila laha yàlla nee na gis nga bu ma nammalee benn waay lu baax ma envoyé ko kenn mënu ko téye su ma nammee téye loolu kenn mënu koo indi bu dee ñëwee bu dee ñëwee waa ji tëdd xam ne day dee dañu koy rawale yóbbu leen ko CTO mu yegg si waa CTO ne yàlla leen faan mu yegg si waa faan dem ne principal mu yegg si principal ñu ne dem leen mu yegg si Dantec ñu ne dem leen Roi Baudouin.
mu yegg si Roi Baudouin ñu ne dem leen mu yegg si foofu ñu ne dem leen balaa ñu yegg caaro yi mu dee parce que day dee kenn amu ci garab parce que yàlla xam ne day dee su waa ji waree dund nag kenn tamit mënul fexe ba du dund dañuy yegg si hôpital boo dem ñu ne eh, fees na fees na fees na fees na ndaw si daal di jur ci biir oto bi ñu yegg si ne leen du yéen a waxoon mu ngi nii nag eh ñu ne gaaw leen gaaw leen ñu fomb ko liir bi naan wee di leen xulli ay bët naan leen man mun leen maa téye damay ñëw fal force da ngeen a moom adduna bi waaw naan ni loxo yi waaw gars yi yaakaar na uyale fekk danaan allah allah allah waaw akbar sunu borom sunu borom du morom waaw.
billaahi billaahi sunu borom du morom allahu akbar c'est que sunu xam-xam moo néew rek sunu gis-gis yi gàtt sunu jaamu yàlla yi néew loolu mooy freiné loolu mooy freiné sunu xam-xam sunu gis-gis dama ànd ak fi ak ay mbokk ñu dem conférence bay ñëwaat ñu jaar autoroute péage ñu ñëw mbokk bi mu ngi fi toog yàlla na ko yàlla fay ñu ñëw rek comme otom bi moom dafa yor euh, ah crédit bu ñëwee du jaar du rang du rang fi oto yi di rang xam nga oto yi dañuy rang di fay 1000 francs moom comme otom bi am na crédit am na kii am carte rapide day ñëw rek taxaw rek weñ bi daal di ubbeeku te kenn nekku oto bi dem yoonam suñu defee retour bu ñu ñëwee ñu jaaraat foofu weñ bi jóg oto bi jàll ma xool ba ne ma ni lii war nañ gëm yowmal xiyaam de kenn nekk fi
te si amul crédit bi carte rek lañ la defal nga ñëw ñu ne na jàll nga ñëw retour ñu ne jàllal bu crédit bi jeexee boo ñëwee machine bi taxaw
nee na doo def.
yàlla mun a yowmal xiyaam ñu baax ñu dañuy dugg aljana allahu akbar gars yi di laaj adduna bi ni ñu bëree yàlla nan leen leen di réglé mu ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun yéen ñu bon ñi génn leen ci ñu baax ñi rek ñu bon ñi reculé wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun beneen aaya yàlla mu ne ñu bon ñi ak ñu baax ñi dañuy rassembler ci benn place ñu naan waaw yàlla naka lay tàqale ñu baax ñi ak ñu bon yi loola gars yi di wax naka la yàlla di tàqale ñépp a ngi ci benn place yàlla day woote sujjóot rek yow ma yudu aw na ila sujud waaw loolu gars yi di wax góor sujjóot ñi doon julli yëpp daal di sujjóot ñi bañoon julli seen articulation yi ñooy taxaw bu ñu bëggee sëgg du dem xam nga luy xew wa duriba baynahuma bi suur ñu dóor benn miir seen diggante ñu bon ñu féete càmmoñ ñu baax ñu féete ndeyjoor fële aljanna moo fa nekk côté bi jàng ngeen ko bi yàlla ne wa durima baynahuma bi suur lan la wax côté bee côté bi lu mu ci wax beneen côté bi lu mu wax mu ngoog benn miir rek moo ñu àtte ñu baax ñi nekk fii ñu bon ñi nekk fii ñii nekk fi xamuñu lu xew fee ñii nekk fi xamuñu lu xew fii kon nañ leen ragal suñu borom ñu xam ne yàlla mooy dëgg leneen lu dul yàlla rek caaxaan la suñu borom mooy yàlla subhanahu wa taala yi nekk asamaan mooy yàlla ji nekk suuf yaalamu moom yàlla xam na sirrakum c'est li ngeen nëbb seeni secret moom yàlla wa jahrakum xam na li ngeen feeñal wa yaalamu moom yàlla xam na ma taksibuun li ngeen di fàggu kon ñeenti mbir yi ñetti mbir yi comme yàlla xam na ko ku mu mën a doon ci ñun soo koy def li ngeen di fàggu doo gën a topp am nañu déggoo am
ku mu mën a doon ci ñun bàyyil xel ne sunu borom jalla jalaaluhu xam na lépp lu ñuy def min xayrin lu baax wa sharrin ak lu bon fa huwa taala fawqa arshihi moom yàlla ma nga kaw arsh baainum min xalqi wa yaalamu sirra ibaadihi wa jahrihim wa yaalamu acmaalahum wa ma yaktasibun bi jawaarihihim yaalamu xaainata al acyun wa ma tuxfi sudur liza wajabat arragbatu fi ma cindahu min xayr warrahbatu bima ladayhi min azab sunu borom jalla jalaaluhu xam na li nëbb ci ñun xam na li feeñ xam na la ñuy bëgg a def ma taksibuun li ñuy waaj a def moom yàlla xam na ko li ñuy bëgg a def xam na ko li ñu def xam na ko xam na li baax xam li nëbb moom yàlla ma nga arsh waaye moo contrôlé jaam yi xam na seeni secret xam na seeni cër la ñuy def cër yi xam na sa xol bi la mu nëbb te génneegu ko looloo tax comme yàlla moo mooy kii war na ñu xemmeem la nekk ci moom ci yiw ñu xemmeem ko ñu bëgg ko waaye ñu ragal la nekk ci moom ci mbugal waaw ar raxba war rëhba ar raxba mooy xemmeem mooy bëgg raxba mooy tiit mooy tëndiku yàlla li mu yor ci ay yërmande li mu yor ci teraanga li mu yor ci xéewal doomu aadama ab jullit war naa xemmeem am loolu waaye yàlla ay mbugalam lam ci denc ak li mu yor ci mbugal doomu aadama war na ko ragal war na ko tiit war na ko moytandiku mbokki jullit yi lii mooy ñetti aaya yu njëkk ci saar bi di anaam bu amee ay njuumte ñoo ngi koy jéggalu sunu boroom bu fekkente ne am na ay laaj incha allah ñoo ngi xaar question yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu